Sundar Matya, Sundar Sundar, Sundar Sundar.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 wa ala sururi ak gën kaa kawe ci mbégum yonent bi sala yàlla na ju yàlla na nga julli ala yoo yàlla taala yow mi aji kawe ali ci yonent bi wa salama ta nga dolli koolu abadan faw amin yàlla nga nangu ñaan de mu ne salaatu fatiha gi maa ngi na nga ko julli ci yonent bi waaye na doon julli goo xamee ne ci sababu julli ma bind ci lay nekkee ci sababu julli googu nga xam ne sa ngërëm moo ci féetee kaw moo ci gën a màgg lépp lu ñuy bégloo yonent bi mbind mi moo ci féetee kaw moo ci gën a màgg yow yàlla maa ngi dagaan ca yàlla na nga julli ci kaw yonent tasalmal ci moom ba faw yàlla na nga nangu ñaan de ba tey mu indiwaat même salaatul fatiha mu ne allahumma yow sunu borom salli yàlla nga sax dàkk di ala sayidina ci kaw sunu sang bi muhammadin turo mooy mooy muhammad aji hubbi lima uxlaqa ñeel la nga wal xaatimi mooy aji mottali li ma sabaxa ñeel yonent yu fa jiitoon waaw naasiri laqi mooy aji dimbale dëgg bi laq jaare ko ci dëgg wala haaji mooy aji gindee di ila siraate ga jëmee nit ñëpp ci sa yoon yi al mustaqim daa ji jub wala ali yàlla na julli ci waa këram waaw xaqa dëgg-dëgg dara jaam wa miqdaar ak dayomba muy nam toll rek alxasima dayomba yi aji màgg de wansur yàlla na nga tasaare alee sama kaw barakaati xawlika barkeeb sa wax ji nga wax fii mat yi ci aw taggam de aaw ne li tuxrija moom kat day génne anaasa nit ñi mina sulumaatin ñi bàyyi ko ci ak lëndëm ila noori jëmee leen ci leer de wa taqabal yàlla nga nangu mi nii jële ci man xaasal mata wii tagg àll si mooy tagg wi nga xamee ne axrajtoo génne naa ko bi ka ci sa kàttan min xaasil fi mu bàyyi ko ci xaraf te mooy li tuxrija naasa mina sulumaat ila noori amin yàlla nga nangu ñaan yaa rabal alamin yow yàlla muy borom bindee fi de mu yow sunu borom yàlla nga sax dàkk di julli ci yonent bi nga xam ne mooy sunu sang bi trop mooy Muhammad mooy aji hubbi li tëju woon mooy ki mottali yonent yu ko fi jiitoon yëpp mooy ki dimbale dëgg jaaree ko ci kaw dëgg mooy ki gindi nit ñi di leen jëmee ci sa yoon wu jubbi yàlla nga julli ci waa këram dëgg-dëgg daraja num toll ak tolluwaayam na nga ko jullee noonu ci kawam de waaye yàlla nga wisaare sama kaw barkeeb sa wax ji nga wax ci alquran di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ boroom moo doon wax ci saaru nga xam ne moom la tuddee Ibrahima li wane rek no ko yow yonent bi waaw dañ ko wàcce ci yow ngir ga génne nit ñi bàyyi ko ci kufru ak réer jëm ci gëm yàlla ak xam-xam ak gindeeku jëm ci diine lislaam lislaam ji nga xam ne yoonu yàlla wu tedd wi yàlla mi nga xam ne kenn mënut koo not waaw mooy ku ñuy sant ci lépp lëf de mooy li muy tàmbali kon mooy ayyuha rasuli li tuxrija naasa min al wal jahli wa dalalati ila al wal xelmi wal hidayati ila diin al islam allati huwa tariqullahi al aziz allati la yuqalibu ahadun al fi kulli sayin moo tax nag sëriñ bi a wax na yow sun borom na nga wisaare barke wax ji nga wax ci alquran ngir tagg yonent bi ndax loolu aw tagg la ndax yonent su fekkee day fekk nit ñi ci réer ak weddi yàlla ak ñàkk xam-xam mu génnee leen ci jëmee leen ci hidaayatu maanaam gindi leen jëmee leen ci yoon siraatal mustaqim loolu kon yàlla tagg na ko rek mu ne barke wax ji nag yàlla na ko wisaare sama kaw waaw te yàlla nag ma nangul tagg wi nga xam ne dama ko génnee ci aaya jooju mu bàyyi ko ci xaraf de waaw tagg yi nga xam ne dama ko génnee ci sa kàttan mu bàyyi ko ci xaraf yi nga xam ne mooy lu tuxu janaasa mi sumat ila noori mooy nang ko nangu waaye barke bi nang ko wisaare sama kaw de yàlla nga nag ñaan yooyu mi borom bindee de mu laam gu njëkk ne la ka tawasaltu bi xayri yaa xayra malikin wa xayra mursali tubtu mina wa takasuli fa tub alaya wa oyo yaxsili xalit sahadati wa kulli jamili ilal jinaani li awsil amali tawasultu dana dana tawasul danaa jottaliku laka jëm ci yow yàlla bi xayri mursalin di ko jaare ci dara jaay ki ngën ci yónente yi yaa xayra maalikin yow ngën ci aji moom yow yàlla waaw wa xayri mursalin ak ngën ci koo xamee ne mooy aji yónni ji de yàlla damay tawsul tawsul gi nag yow laa koy def yow laay ñaan li may tawsul waaye dama koy jaaree ci barkeeb ki nga xamee ne yónent yëpp moo ci féete kaw moo ci gën yow yàlla mi nga xamee ne yaay ngën ci aji moom kuy moom ku ne lam moom aw yaa moom ba noppi moomaale ko lam moomaale lam moom moom ki moom yaa moom lam moom yaa moom waaye itam képp kuy aji yónni yaa ci gënde loolu aw tagg la rek di wax ne melukaani suñ borom subhaanahu wa taala képp kuy yónne yàlla moo gën ci kuy yónne képp kuy moom yàlla moo gën ci kuy moom kon nag maa ngi tawasul ci darajaay ngën ci képp ku yàlla mosu yónni waaw di ko jaare ci darajaay ki ngën ci yónent yépp waaw yow yàlla mi nga xam ne yaay ngeen ci aji moom de kon la ka ñeel na la yow yàlla tawasaltu sama tawasol yow laa yow laa jëm de waaye nag bi xayri mursalin dama koy jaare ci dara jaay ki gën ci yonent yi te mooy bi sallallahu alayhi wasallam fi ma jëm mooy kan yaa xayra malikin yow ngeen ci aji moom ji de wa xayra mursili yow ngeen ci aji yónne ji de kon nag tuub tuub maa ngi tuub mina taswifi ci lépp ni néeg néegal wa takasuli ak tayal de fotub yàlla na nga nanga tub a ci man wax si lii yàlla na nga raxas xon yoo bee sama ayib yëpp de lépp loo xam ne néeg-néegal taswiif mooy ko xam ne bëgg naa def lu baax waaye na xëy na tayaloo ko waral loolu ci ëpp tayaloo waral mooy waral nag israar muy nuuru ci bàkkaar war a julli tisbaar ma nelaw rek ba tàkkusaan ma daal di koy julli loolu mooy ku koy def ku ne rek wala yaasu billaahi waaw yàlla nañ ci musal mooy boo amul chance dëgg-dëgg fi ngay mujj moo di ak taxay di rek boo amee chance nag suñ borom mën naa tàggat sa cër bañ kontaan ci jaamu yàlla taswif daa mooy cër yoo xam ne dañoo tayal bu gisoon lu baax ca sansa mu xam ne lii aw yiw la itam du ko def de waaye bu gisee lu bon mën na ko def ci sansa de kon nag maa ngi tuub ci lépp loo xam ne ni négal la ak tayal lépp loo xam ne lu baax la daal ma am lu ma koy xaaree wala may nit négal naa naa naa xaar ba nangam ma def ko yàlla loolu yëpp maa ngi koy tuub kon nag tuub gi nang ko nangu waaye lépp loo xam ne ayib la ci man nang ko raxas bam setu ci xalit yàlla na nga saxal dàkk saxaadati samak texe wa jamile te yàlla na nga rafetal kuli samak lépp waaw lépp lu bokk ci man rek nang ko rafetal ba kenn du xam sama ayib waaw moo xam ayib biir yëg biti yëpp kenn du ko xam ndax yàlla kum gàcci li nga xam ne moo di malaanuk suturaam rek kooku kenn du la xamal dara moo tax mu ne nanga nga saxal samak texe dàkk waaye sama lépp na nga ko rafetal de wa awsal yàlla na nga eggali lii ci man amale li nga xam ne moo di samay mbébét lil jinaan ba kerek may tàbbi aljana waaye lépp loo xam ne dama ko mbébét ci na ba kerek may tàbbi aljana rek yàlla nag ma koy jox loolu nag jotee hut buñ tàbbi aljana dara nit ki bu neexee mën naa ñaan yàlla na ko lépp lu may mbébét ba kerek may tàbbi aljana na ma ko jox loolu nag jotee hut ak dara la nga war a am ci aljana de kon mu ngi noonu de ndax ñoom góor yàlla yi dañoo mën a ñaan seen borom subhaanahu wa raditu gërëm loo an ko walis la wa anil musafa wa anil walis ka nga xamee mooy aji sangu ja aaw wajaal yàlla nga def bii ci dara jàmm kullee sama lépp xayra amali mi ngën ci jëf de mun yow suñ borom gërëm naa la de kontaan naa ci yow de bég naa ci yow de gërëm naa yonent bi nga xam ne mooy musamili alquran moo ko ko ba nga xam ba nga xamee ne njël wax yu ga waaw tàmbali na mooy dem gam daan dem ci xaarul xera ba noppi nag di fa jamu borom subhaanahu wa taala ba jibril fekk ko fa xoj ko fa xoj bu métti boobu na ko jàngal mu ne ko lan lay jàng na man baaxoo ma di jàng mu xoj foo xoj bu métti métti ba yonent yi mel ni ku tiit tàggoog sogom daal di ñëw nag ci kër gi ci soxnaam su tedd ja di sayyidatuna mu di ko defal di ko defal di ko defal bam dal sangu googu mu sangu rek mel ni jinne ko jàpp ba xadijatu yóbbu ko ci benn mbokkam ngir nag mu di xool ba xam kii moom jinee ko jàppam wala dafa dafa wala dafa nangam kooku na wax ko ci ay mbir yu keemaane de mu ngi noonu de na ko jinne jàppul ko ci la daan dikkal yónent yi moo ko dikkal rek waaye nag wallahi kii na nga xam ne yàlla dana ko yónni de waaye nag aka neexoon waxtu wuñ koy génne màkka a ah, bëgg koo lor ma ma doon wax maa di woo ponkal di ko xeexal di ko jàppale de ndeysaan aka baax mu ne ko kon gërëm loo naa yow yàlla gërëm yónent bi yàlla na nga def ci barke bi yonent bi sama lépp muy ngën ci ak jëf de sama lépp na gën ci ak jëf bu ñu xoolee sama jëf na gën ci mboolem jëf yi lépp lu bokk ci man de. jug yow yàlla tabe nga lii ñeel ma bi xayri samanin ak ci ngën ci ak njëg de ngën ci ak njëg mooy li ma jaayantoon ak yow jox nga ma ci ngën ci njëg de gépp njëg gooy jox doomu aadama jox nga ma man njëg go ca gën de moo tax mu ne jut tabe nga lii ñeel ma. di xayri samanin ci ngën ak njëg de wa baddali ak lu wettee la nga xamee ne jaayoon naa la ko waaw wal tux ni yàlla nag ma doyluloo ci yow anil may weerante kenn wal jadli wala may dagg sante kenn di xuloog moom de yàlla yaa ma may njëg ga ci gën de waaye nag lama la jaayoon itam waaw yaa ma ko wetteel lu gën lama la jaay yàlla nag ma doyluloo ci yow boobu ma weerante kenn wala may xuloo kenn dagg sante kenn loolu bu ma ko def de awsil eggale nga ilay jëmee ci man mux jilan loo xamee ne aji gàccal la lil xasili lem watan ci ak neexaay de bila asan ci lu benn loor aw kasili wala tayal de yàlla jox nga ma loo xamee ne aaw lu lem di neex-neex lag ma jox moo ko féete kaw ci neexaay de te benn loor nag duma ko def mukk wala benn tayal duma ko def loo mukk de kon la ko yàlla jox du ko lor du ko tayal loo te loolu nag moo gën a neex lem gàccal na ko la wax de ca yàlla jut na nga tabili ñeel ma bi kaw ne sama nekk man sëñ tuba suróoral kumali di mbégum mboolem way mat ñi yaa man yow mi nga xamee ne lam yemil doo jéngal mukk dégg nga ci barke bi yonent bi lii di jëmee ci man al asa lor de yow yàlla may nga ma ma doon mboolem ñi nga xamee ne dañoo mat moo xam wu luy la ak ku mën a doon rek waaw dañuy bégee sëñ tuba de mu ne yàlla yaa ma may ma doon mbégum mboolem way mat ñi yow yàlla mi nga xam ne ci bar ci darja yonent bi du jéng mukk du jëm ci man li nga xam ne moo di ay lor ndax yàlla du jengal benn lor ci barke bi bi di ko jëmee ci man de nawir leeral nga bi hurmati nabi ci xormaay ka ñu soloo ka këlkëli sama xol de soddit kon nag na nga jubal lisaani sama lamañ xat na nga may li ñeel ma kaw naka sax nekkal lii ñeel ma de yàlla leeral nga ci xormaay yonent bi sallallahu sama xol leer na nañ nañ ba iman dugg ci de waaw lépp luy lëndëm rek génn na ca naafiq génn na ca bokkaale génn na ca leer na naññ ci xormaa yonent bi salaay salaam waaw loolu mooy li tuxrija naasi gim tënkee xasida gi rek waaw loolu moo tax ay jum tënkee xasida rek boo amee seetantal da nga ciy gis max naa wax ya moo tax mu ne leeral nga sama ko sama xol ci xormaa yonent bi salaay salaam kon nag sama làmmañ moom na ko jubal kocc na nga ko fecci mboolem xëyti pas-pas yu ci nekk yëpp li muy wax na leer naññi te doon làmmiñ wax ne wu jub kocc lay lay doon waaye yàlla yàlla bul dañ mukk di ma nekkal ci lépp lu may bëgg de asib dàq nga waaw li xëyri bila asan waaw ci lu benn lor li xëyri mu jëm ci li xëyri xibali mu jëm ci fudu sama wàll man raama ka nga xamee ne doon na sàkku maa yi uni loo xam ne daf may naqari wal tax bi te yàlla nag ma doolee nangul de yàlla ka nga xamee daf ma doon naqaral lu ne mu teg ma ko lu ne mu wax ma ko lorom yëpp dàq nga ko mu jëm ci fudul sama wàll de kon nag lii may def nekk ci di woo mbindeef yi di leen jëmee ci yàlla yàlla nga ko doole nangu de moo tax mu ne asib dàq nga bilaa asan ci lu benn lor le xëyri xibal yi mu jëm ci fudul sama wàll man ma ka nga xamee ne doon na sàkku maay uni lu may naqari wala tax bi te yàlla nag ma doole nangul de salim yàlla nga musal xeyaali sama njaboot de wal tusofi te yàlla nga sellal man si sama kër woo waxta nii ak samay dëkk wasafi te yàlla na nga sellalal lii ñeel ma nusuli sama bernde de yow sun borom sama njabootu bopp sama taalibe yëpp nang leen musal sama kër itam nang ko sellal ba benn nax na bu mu fa dugg bu fa xuloo am bu fa coow am bu fa dara am de ñëpp nañ nekk benn samay dëkk itam kasaalika naka noonu waaye bernde yi may defal gannaaw ba ma demee ci géej gi ba ñëw ganale yëpp nang koy sellal ci waxtu wu ne de ma mariya sama jaar waay ixmi de xaar nga xaar nga ma fa rabbi yow sama borom xan tasal walis lépp loo xam ne xeet rëng-rëngi la waskur yàlla na nga sant tilaawatiya sama jàng xayra mun siliñ gën ci la ñuy wàccee te mooy alquran de yàlla bañ ma yóbboo ci géej ga fu ma mos a jaar rek xaar nga ma fa ba tiis tiis yëg xew yo doon am yépp ca barab yooyee ñi doon ma yóbbu di ma fa jaarale xaar nga ma ba musal ma fa de yàlla na nga sant jàng may jàng li nga xamee ne mooy ngën ci lu ñu wàcce loolu mooy alquran de mu ne kon yàlla nanga ko sant de nabi yeexee nga bi xati sama mbind ku la si taxaquli képp kuy borom sàggan wa yàlla na nga walbati la xayre mu jëm ci fudul man xeddaaya li nga xam ne moo di samay noon wax xili te yàlla nga doole xelaloo ci samay mbind de mu ne yow suñ borom ci sama mbind ci nga yeeyee képp koo xamee ne waaw dafa sàggaane dafa am xel waaye nag da koy sàggaane képp koo xam ne nag dafa am xel waaye ma ngay sàggane xel mi ci sama ci nga ko yee de tànquli nag buñ ko waxee mooy koo xam ne am na xel masalan ki nga xam ne day conférence di waare ma ngay waare waare waare waare waaye nag ma ngay fàtte boppam kooku nag nee na sama mbind bu ko rek da ko yee de mu ngi noonu de mooy laal Alxuraan di wax ne ataamuruuna naasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum bi lakk boppam lu muy jëriñ moo tamit na biñ yéexee nga bi xët ci samay bind ku la ci taaxule képp kuy borom xelu le mooy koo xam ne daal am na xel waaye dafa sàggan wasrif yàlla na nga wëlbatale xëyre mu jëm ci fudut man xedaay samay noonu waa xel te yàlla na nga xeluloo ci samay mbind nga xam ne képp koo xamee ne am na xel loo amaam xel boo ñëw ci mbindum sëñ Tuubaa sun borom gën laa dolli ak xel abbin yàlla na nga leerale bi xët yi sama mbind abbin yàlla na bi xat ci sama mbind xayrael min ngeen ci xam-xam yi wak bul yàlla na nga jéng ku laxasoo din bépp aji kañaan mux dégg nga dégg nga mux bilu mi aji jëm feneen mux bilu mi aji jublu li asaaya ñëw di ma lor si de mu ne yàlla ngeen ci xam-xam na ko feeñile ci samay xasida waaye képp ku may kañaane moo ki lorom yëpp nag mu ko jéngal ba ma mucc ci moom de moo tax mi na abin yàlla na nga feeñile bi xatti ci sama mbind xayre xel mi ngeen ci xam-xam de wag bul yàlla nga tëj yàlla na nga jéng ku laasoo din bépp aji kañaan li asaaya ñeel mu may lor mux bi mu muy aji jublu jëm jëm de maanaam daal bu ma a lor mukk na jublu rek jëmaat feneen ak loram de in saraftu wëlbatiku naa la jëm ci yow bi ka ci sa kàttan saar may borom dëgërlu muy wakiilu alee ka ci tey bi yàlla na nga teyal masre bi sama naan wa ma xëkkali ak sama lekk rek yàlla wëlbatiku naa bàyyi lépp lu ma nekkoon jëm si ci yow dëgër lu ci yow wakiilu ci yow du ma gestu leneen kon nag lekk yi may lekk wala naan yi may naan yëpp na nga ko teyal de sulmi sama tooñ immaha faru na de ci sa kàttan mboolem tooñ yiñ ma doon tooñ lor yiñ ma doon lor yëpp dindi nga ko de ci sa kàttan yow suñu taala bila taajuli ci lul muy am dig taajuli mooy taaqara rek maanaam yàlla far na ko ca saasa te amul ak yéexee de moo tax mu ne sulmi sama tooñ imaha faru na bi ci sa kàttan bila taajuli ci lul ak digu ci lul ak dig mooy ci lul ak yéexee rek wa ma wata far nga ajjili sama dig bi ci sa kàttan yaa baax yow yàlla mi aji des ji de yàlla ni nga faree sama tooñ kenn dootuma tooñ te man tooñ kenn yàlla dong ko far ci man li ñuy wax tooñ bam seet wicci fi lu dul ak yéexee de te ba tey far nga sama dig ci sa kàttan yow mi nga xam ne yaay aji des ji waaw diir bi nga xamee ne moom yàlla moom nga ma sàkkuloon ne bu jotee rek waaw danaa faatu dig boobe yow yàlla yaa ma ko faral dig boobu bu du ma faatu mukk yaa ko far ca sansa de moo tax xawta far nga ci sa kàttan yaa bàq yow sax te doo faatu mukk ajjil yow sunu borom di boobu yëpp yow yow ko far de doonatuma kuy faatu de lakk jëm na ci yow kot kootu su ko sama cant bi xayri wàjjale ci lurut bennam njàqare ilal jinaani ba kerek may taabe aljana wa bi xayri ci lurut benn gàcc yàlla samay cant yow dong lay cant di jëmee ci yow duma cant keneen te benn njàqare du ci topp de ndax kii cant moom day fekk nga bég waaw dama lay cant rek ba kerek may taabe aljana du ma it du ma itam gàcc de cant kat du am gàcc de kon mu ngi de ki dul rek mooy ki nga xamee ne mooy faral di am gàcc boo xool yéeféer ñi santu yàlla moo tax ci gàcc rek la ñuy dëkk de maaw ta far nga an nii jëlee ci man yaa xabiir yow mi aji deñ ku bëji salali samak tarxes de wa xewe ji ak samak jeng-jeng wa xare ji ak samak tiis wa xelali ak samay rag ràgg de yow yàlla far li nga xamee ne moom la ñuy man muy ak rëcc-rëcc lépp lu ma def ta ta ta ta dafa rëcc rek maanaam dama ko def ci xeeti njuumte rek yàlla dindi nga ko mooy dama ko toppee. moo tax kon mu ne ko maxoo tafar nga àndi jëlee ci man ya xabir yow mi aji dañ ko bëji salali sama tarxees lépp loo xam ne rëcc rek la nga ma ko waxee ak sama jéng-jéng mooy li nga xam ne ba ma koy def dama mooy yoonu siraatal mustaqim waxara ji ak sama bàkkaar waxee la li ak sama ràgg-ràgg lépp loo xam ne xeeti ràgg la wala bàkkaar wala jéng-jéng wala rëcc rëcc rek yow sunu borom far nga ko ci man jéggal ma ko. icaal yow sunu borom defal li ñeel ma yow yàlla alxaadaati samay lekk ka naan wala nelaw yi ka tànn fu lu mu mel ni naafale de na nga def bu ma lekkee wala ma naan wala ma nelaw mu mel ni koo xamee ne dafa fanaanoo guddi gi di naafale di jàng alquran wala mu bëccëgoo li nga xamee ne moo di naafale. kon lekk sëñ Tuubaa wala nelawam moo tolloog naafile gaa yi baax yi woo basir waa yàlla na nga bégalee bee ci sama jëmm ji max di daaka ànd ak sa ngërëm max fali li nga xamee ne moo di samay ëtt yow yàlla samay aada gannaaw boo ko defee mu mu tolloog naafile gaa yu baax yi na nga bégalee ci sama jëmm ji ñi nga xamee ne ñooy maxfal mooy ñi dëkkee ci sama ëtt ñëpp samay taalibe yëpp sama dong ñëpp waaye nag na ànd ko nga defal ma li nga xam ne moo di sa ngërëm moo tax min woo basir yàlla na nga bégalee bi ci sama jëmm ji waaw maxfali samay ëtt de mboolem samay taalib ñi ñëw sama keppaar di ma wuy si ci woote bii nga xam ne moom lay woote te moo yoonu ak cant gannaaw moo demee ci géej gi ba ñëw na nga leen bégalee ci man gis nga màggal gi ba ñëwee ñëpp dañuy bég de kon woo biyee basir max di daaka samay ëtt yëpp na nga leen bégalee ci man ànd koog sa ngërëm de yaa na ko yàlla fayal tubtu yow borom maa ngi tuub ileeka di dellu ci yow rabbi yow sama borom min taqawuli ci lépp loo xam ne waxantu la ma def ko de waxantu mooy wax joo xam ne waxi kaf la wala bébantu wala wax joo xam ne amul benn tiyaaba loolu mooy waxantu loolu sunu borom wax na yonent bi na ko boo ko defoon ci alxuraan rek ñu dagg sa baat de wala taqawla alaynaa ba'dal aqaawili la aqasnaa minhu bil yamiini summa laqatanaa minhul watiina aaw muy noonu de kon nag yàlla fa tub yàlla na nga nangu tub alee ci man yaa mu niilal qawali yow yàlla mi nga xamee ne yaay aji may li nga xamee moo di ay xéewal de xawal boobu li muy tekk mooy anni xamu foofu de mu ne yàlla maa ngi tuub di dellu cew ci lépp loo xam ne su fekkee waxantu la ay waxi caaxaan waxi bebbantu kese la yàlla maa ngi lu koy tuubal bëgg nga jégal ma kon nag fa tuubaan li na nga nangu tuub ci man de nii lal xawal yi yow mi nga xam ne yaay aji may ay xéewal de xut woo man nga ilee jëmee ci man maa séentu lépp loo xam ne doon naa ko bëgg bi ci ak yombu yombu de is ngir kullama lépp loo xam ne saxalta yombal nga ko rab yow sama borom yes fuli mu daal di yomb de yàlla lépp loo xam maa ngi ko doon bëgg rek wombal nga ko jox ma ko ci yombu yombu amul benn jafe-jafe de ndax yaw yàlla lépp loo yomb rek mu daal di yomb de aaw yesir loxum bi la ci tansara fu kullu maa yi sa too tey sa la wax ci wakkaan laka ñeenal yow yàlla koto kott sukóor yi samay cant bil kitaabi jare jaaree ci alquran al afdali moom mi nga xam ne mooy téere bi gën min xayri walis bu dul moom xat xan ci lu dog de fokku lii sama lépp de yow yàlla fàttali gënal nga ko de yàlla yow dong lay sant di ko jaaree ci alquran ji nga xam ne moo gën téere bu dul moom de waaw ci lu amul benn werante alquran moo gën mboolem xëyti téere de kon nag yàlla yàlla na gënal sama lépp de yaa xaali man يا حالما لي جاد بالتنبل حب لي صلاح الهال والمستقبل أعطيتني سهلي وما لم أسألي يا خير نافع وخير موئلي يا حالما وانا لا يو أجي قم جيغا خميني jaada tabe nga lii ñeel ma bi tana buli li nga xamee ne moo di xelu mooy xel moo mu ñor la kon nag xab xab na may lii ñeel ma salaaxal maanaam sama lépp yéwén tey jii wal mustaqbil ak luy jublu si sama lépp daal di yéwén jag de yàlla woo naa la yow muy aji xam ji nga xamee ne yaa ma may xel moo xamee ne aaw xel mu ñor la de kon nag tey jii na nga defar sama mbir yëpp ak ëllëg de tey ak ëllëg yëpp na nga defar sama mbir ci saayir ak ci baatin loolu moom la wax li nga xam ne moo di tànnabul de buñ ne tànnabul rujulu mooy takku lu foo wa tasabbuhu bi nubalaay mooy koo xam ne dafa am xel di niru niru lu ñu xelu ñi moo tax ñi naan ina nabi la yeg fii nublu ani tanabuli de ki xelu dana ko doy mukk dana ko doy sëkk xelam walis way xelu ña de ki xelu moom xelam dana ko doy sëkk walis ñu xelu ñi de mu ngi noonu de kooku may tanabul moo tax mu ne ko yaa ma may tanabul li nga xam ne moo di ak xelu waaw kon nag nag ma may tey ji sama lépp daal di yéwén jag luy jublu waaw sama lipp daal di jag de doomu aadama loo rek la mën a ñaan yàlla de ndax la wéy moom wéy na ñaanal yàlla mu jégal ko rek tey nag ngay ñaan yàlla sa lépp baax ak luy ñëw ëllëg de te ëllëg mañ na la fee bañ a fekk wax tey te nii nga ma suxli sama laaj wama ak loo xam ne lam as ali laaju ma la ko sax yaa xayra naafeen yow ngën ci aji jëriñ ji wa xayra maw ili te ngën ci ak wiiruwaay de yàlla li ma doon laaj yëpp di ko ñaan jox nga ma ko ba jox ma loo xam ne sax ñaanu xuma la koon waaw nit yàlla yi noonu lañ mel bu ñaane yàlla dara yàlla da leen di jox loo xamee ne sax waaw waaw ñoom sax ñaanuñ ko yàlla le ngir mbaaxu yàlla yow mi nga xam kuy jëriñu yaa ci gën wéeduwaay yëpp yaa ci gën waaw mooy sun borom kuy wéedu ku ne rek wéedul ci yàlla laka ñeenal yow kot kot il te jontu sama wéedu saa mbir moom may aji cant foo man di toll rek dama lay cant di saxoo cant ka rek te duma ko wàcc mukk de fal kon nag yàlla na nga dañal tawa jool asa jublu lor li nax wi di jëm ci samay wàll yesili ak dañal de kon nag dama wéeru ci jox la sama lépp di la sant kon nit bu wéeroo ci yàlla rek lépp loo xam ne xeetu lor la bu koy jublu rek sun borom moo ko cay musal dàqal ko ko dañalul ko ko de donte moom mën naa bañ a xam lor ko wala mu gis ko naa jeytu ko diinte nag yow alyoma tey jii fa ajili yàlla na nga gaawee bisiri sama mbégte de bilaa nihaayatin ci lur muy am yemukaay wala ta ajjul wala muy am digale maanaam luy dox digganteeg mbégte ma de yàlla maa ngi diyanteeg yow tey jii kon nag dama bëgg sama mbégte moom sama wituwaar sama digganteeg noon yi nag ma ko wax léegi ma xam ko sama mbégte daal na ko gaawee waaw nga xam ne naqar woom dal ci géej gi yëpp ñëw na ci géej gi léegi nag mu ne ko yàlla nag na nga gaawee suma mbégte nag te mbégte mi nag bu xasee ñëw moom bu am yemukaay mukk bu am lenn luy dox diggante mbégte mi de ah beneen naqar daal bu mu ñëwaat daal. woo doot yow yàlla muy soppaakoon bi xam na nga may lii ñeel ma al al wudda ak cofeel doona malale ci lu ak yokkot de wax di yàlla na nga gindee bi xati ci sama mbind ah, ci sama mbind mi anaasa nit ñi xayral milali ngën ci diine ji de ngën ci yi de yow yàlla soppa kon bi nag ma may ma sopp la cofeel goo xamee ne am yokkoon mukk léeg-léeg nit ki man nga koo sopp rek wala yàlla nga sopp ko ba yàgg sax day am diggante nit kek ak yàlla dem ba yàgg mu yokkot ci cofeel gi wala la sim yàlla nag boo ko soppee da nga koy jaamu da nga koy sant buy neex ak buy naqare ak yëpp ci am de waaw kooku mooy ki sopp yàlla sax ci la yàlla bëgg rek buy neex ak buy naqari ama boo ko ñaanee sax ci gisoo lam la may. waaw kooku doo yokkut de am na ñoo xamee ne luñ bëgg-bëgg yàlla wa dañ toll jamono joo xamee ne dañuy mel ni ku yokkut yàlla ni ci yàlla musal mu ne ko yàlla muy soppaaw kon bi na nga may ak cofeel ci lu benn yokkut de waaye nag nit ñi na nga leen gindee ci sama bind waaw ngën ci yoonu siraatal mustaqim de nga xam ne kon xasida yi dañuy gindi nit ñi di leen jëmee ci yoonu siraatal mustaqim rabbi yow sama borom istajib yàlla na nga nangu sama ñaan bi jaay xayri mursali ci jaay ki ngeen ci yonent yi alayhi yàlla doole nekk ci moom yonent boobu taslimaatu xayri mursili salaatu wasalaamu ngën ci aji yónni ji de ngën ci aji yónni ji de mun yow suñu borom yal na nga nangu sama ñaan ci darajaay ki ngën ci yonent yëpp sama yonent bi salaay salaam yow yàlla sa salaatu wasalaam yow mi nga xamee ne yaay gën ci aji yónni ji ah yàlla na julli ci kaw yonent bi salaay salaam kon xasida googu jeex na mu daal xasida gu tudd la in sakartum la asidanakum mu ne bismillahi na mas ma wax ci tudd bi arrahmaani buur bay xéwalaa kon bépp mindeef caadu na arrahimi buur bay aji yërëm ku ko soob ca àllaaxira mu ne maa ngi tàmbali ci tur yàlla yàlla mi nga xam ne mooy kii xéwalaa kon bépp mindeef caadu na tey aji yërëm ku ko soob ca àllaaxira la in sakartum sunu borom ne waat naa ne bu ngeen sante laa si dana ko waat naa la danaa leen dollil de yàlla ne ne bu ngeen sante waat naa ne ma dollil leen sant kat boo gis rek yàlla nga koy dollil ci saahir ak baatin kon mu ngi noonu. moo tax yàlla bëgg ngay sant doomu aadama bi nga xam ne ci la jaarale xéwal gi ndax boo ko santee rek yàlla ne yëg naa ne sant ko doomu aadama bopp man su ko defee nag maa lay dollil de kon tiraanga ju bee ko ci doomu aadama yi waaw ñëw ci yow rek da nga xam ne ci yàlla la bee ko waaye nag balaa yàlla di yëg ne sant nga ko moom da ngay sant kim jaarale tiraanga ji de kon la in sakartum laa si dina ko mu ngoog mu jël laam gu njëkk gi ni lillahi sukuriya bila kufraani musaanani an kulli si lilaay ñeel na yàlla moom dong dong su koree sama cant ka gërëm bilaa kufraani ci lu dul weddi du ma sul jëf mukk yàlla defal ma dara ba noppi ma mel ni ku sul jëf ja du ma ko wax a loolu mooy ñàkk sant nit ki buñ ko defalee dara sant rek mooy dafa sul mooy bëggul kenn xam ko de te da ko war a waxtaanee nag ba ñëpp xam ko ne ndax ni rek bu la defalee boo koy sant bu yàggee mu di la dolli waaye nag boo noppee rek na cell dootu la dolli mukk de naan ah ki du ma ko dolli de. waaw comme ndaxam yàlla rek nee na boo noppee du la dollil waaw kon dangay sant yàlla waaw ci di ko waxtaanee ci waxtu wu ne ci di ko jëfee de kon nag ñeen yàlla sama cant ak gërëm ci lu ak sul jëf de musaana nii diirub ñoŋal na ma an ku li yi ma wëlis képp kuy borom perte de diirub yàlla musal na ma ci ñi nga xam ne dañoo perte rek sun borom moomee du ma dëñ mukk di ko sant du ma sul jëf mukk mooy du ma tàqoog du ma tàggalikoo cant gi de. ayaatoo ay ayam yii di alqur'aan kafanniye ñooma fegal alxaareeni gàcce adnuka alaxira wasaanani ñooma ñoŋal xandarari naareeni walis safaraw aduna ak sawra alaxira de xandarari naareeni walis loru safaraw aduna ak alaxira de nee na aaya yàlla yii di alqur'aan gàcce adnuka alaxira su fekkee dalun ma aaya musal alqur'aan moo ma musal alqur'aan moo amee moo musal ba safara ut nag alaaxira lor yi ci nekk yëpp tooge yi ci nekk yëpp suñu borom musal na ma ca kon loolu day teg leen suñ tubaab ku ko jëloon dugal ko ci biir safara sax waaw du ko lakk de moo xam safara ëllëg yëmal xam ak adduna yëpp ci am de ndax suñu borom ak ko defal nawaytu yéene naa sukuruhu ak cantam moom yàlla sukura man cantu ko xamee ne sarib naan na min ka si ca bàyyi ko ca kaasam ba addi xaaqi kaasam bay aji fees tepp wa inni man sëñ Tuubaa muqtarib aji je ku ñu jegel borom subhaanahu wa taala nee na yéene naa sant sama borom cant koo xamee ne yàlla da koo nandal kaas yi nga xam ne moom lay nandal góor yàlla yi nga xam ne dañoo jaamu yàlla dem ba buñ toqormee yàlla lu ñuy yëg buñ nerwee lu ñuy yëg bu ñuy dox yàlla lu ñuy yëg seen lépp yàlla la yàlla am am na kaasab leer bu mu leen nandal nga xam ne dootu yëgati dara lu dul borom su ko defee nag ñi jege seen borom subhaanahu wa taala moo tax mu ne dama yéene cant yàlla niki ki ki nga xamee ne yàlla da koo nandal kaas bu fees dell nee ba ma ko yéenee nag ci la ma yàlla jegeñal boppam de mooto me mi nawetu yéene na sukuruxo ak cantam sukura man cantu koo xamee ne waaw sarib naan na min kax si mu bàyyi ko ci kaasam ba addi xaaxi ba daaji fees tepp nii man muxtarib ku ñu jegal laa yàlla waaw yàlla moo ma xëcc jégal ma boppam de saqale ni yittiloo na ma saqale ni soxlaaloo na ma asukuro cant yàlla ani sikaay ani sikaaye walis jàmbat walay sa tan du jublu mukk jaati sama wàll ni kaay loo xam ne ay méttit la de ku may méttital nee na sama yitte yëpp moo di sant waaye du jàmbat bàyyi naa jàmbat kenn du ma gis ci na may jàmbat sant rek moo fi des de li xeeti méttit itam dootul jublu sama wàll ndax méttit mooy waral nit di jàmbat te sëñ sama yitte moo di sant du ma jàmbat mukk même buñ ma tegoon sax loo xamee ne jar na jàmbat du ma jàmbat mukk damay dama koy jàllat bi ko wéetee ko sant yàlla katabtu wa ini sakunu lastu sastika ca liyan xaada karama nii teral na ma alkarimu yàlla mu di aji tedd ji wal mukarimu tey aji teral ku ko neex watante yi dana jublu li xëyre jëm ci man alxaram ramu armée bi nga xamee ne mooy armée bu am doole bi yàlla mu di aji tedd ji tey aji teral ku ko neex ñaari turam yi ci la ma terale moo tax armée bi nga xamee ne ñoo ma jël si woon Sénégal yóbbu ma Gabon ñoom ñëpp suñu borom musal na ma ci ñoom daw nañ jëm ci feneen fu bokk ak man de raafa xaniin àndante nag man jundul xa ci soldaar yi yàlla muy aji not ci kàttanam alxaaliboon soldaar yéda way not mboolem lu yàlla bind de ñi nga ànd ak man nag waxta jihaad yi waxtu wu may jihaad ci géej ga faxaari boonu way daw lañ bàyyi ma fi xeddaay samay noon de nee na ba ma nekkee ci géej ga soldaar yi suñ borom muy malaayka yi ñoom la àndutoon fu ma nekk rek maa ngi ànd ak malaayka yi waxtu bu may ak sama noon moo tax noon yëpp dañuy mujj daw de ndax malaayka yi jëm yi malaayka yi lañ doon gis tuur si sama pak xanil xadd bi dox sama digganteeg mer wa daali ak réer jundul xasiisi mooy soldaaru yàlla muy aji not ci kàttanam aljaali boo ñe way bijji alxalaal yi nga xam ne moo di xéwal yu dagan yi de su fekkee ne ba ma nekk ci géej gi géej ga ngàndaay gi ma yoroon ba du duma mer duma réer te maa ngi ci biir noon yi nga xam ne ñoom ñëpp ay merkat lañ ñu réer lañ nee na gen genn ngàndaay rek laa yoroon de mooy soldaar yi ma àndutoon nga xam ne lépp loo xam ne bëgg naa ko ci géej gi ñoom ñoo ma koy indil bu dee lekk ak naan yëpp malaayka yi ñoo ma koy jox mooy soldaar yàlla mi nga xam ne mooy aju not ci kàttanam mat du maddu taalal yëdi sama loxo li xëyri muxnin jëmee ko ci kudul yàlla muy aji doylu ji dégg nga ax naa kook dana ma doylu lo lay su yura du ma ko gis mukk kenn du gis ma def ko wa safaata sellalal na lii ñal moom yàlla max naa li nga xam ne moo di sama koom de nee na may taalal sama loxo jëmee ko ci kudul yàlla mi nga mooy ki may doylu loo di ma jox nee na walaay kenn du gis ma def ko de te yàlla moom mboolem samay koom sellal na ko ba benn nax-nax bu ci am de lam yanhud du jublu mukk iblisu iblis wala muhaadi wala ku may noone li dar yi ñëw di ma lor si de wa taabata tey na lii ñeel ma haadi sama dellu si gi ma dellu ci Sénégal de ñeeni iblis dootu mu jublu mukk wala koo xam ne daf may noone ndax mucc naa ci ñoom kenn dootu mu mën a lor de waaye dellu gi nga xam ne moom la ma yàlla delloo ci senegal tey na ci man de xaada woo mat na ilay jëmee ci man rabbi son borom alxolama mboolem fi xam-xam mën nekk wa taybatin ak minhu mu bàyyi ko ca moom wa taxlima ak jàngale de nee na fu xam-xam mën a nekk wala yu teey yu baax lekk yu teey rek wala xam-xam yëpp suñu borom womat na ko jox ma ko ak li nga xam ne moo di jàngale waaw loolu suñu borom ba tey waaw womat na ko jox ma ko mooy kon yàlla ko sant muy jàngale ci waxtu moom sëñ Tuubaa de yàlla na ko yàlla fayal. sintu taaral naa sintu peesa naa sintu màndexe naa bi ci mbaaxug yàlla loxoo jëmee ci yàlla makaatiba ay xasida makaatiba ay bind yoo xamee ne ay xasaayid yoo xamee ne te door danañu wëndeelu ci diggante xaras ak kursi yu xasaayid yooyu muxjilatan aji gàcce la bii ñoom xasaayid yooyu asumuusu mboolem xeeti jant yi wal bu door ak weeri muy nit ñu baax rek bu dee jant yi moo di yonent bu dee weeri mooy nit ñu baax ñëpp noore nga koy déggee nee ne taalif yoo xam ne dañuy wëndeelu nekkul sax ci kaw suuf dañuy wëndeelu ci asamaan ya ci diggante xaras ak kursi yu ak mulk yeeg malakoot fépp foo xam ne pii suñ borom la ki jëboroot ak fépp rek ñi di fi wëndeelu nene na nag ci mbaaxu yàlla rek ci laa ko taalifee xasid yoo xam ne dañuy wëndeelu nga xam ne xasid yooyu leer ga ca nekk gàccal na leer gi nekk ci jant yi gàccal na leer gi nekk ci weer yi nit ñu baax ñëpp leer gi nekk ci ñoom xasida xasida yi leer yooyu leer yooyu nekk ci xasida yi moo leen ëpp doole yéen xaara dana womatu leer xarsi jëm xaras walil kursi yu ak kursi yu xatti sama bind de waaw mooy wamutu jëm xaras ak kursi yu lépp lu ma bind rek léegi yàlla da koy yéegal jëmee ko ci ca kursi yu jëmee ko ci xaras de muy wëndeelu foofu de moo tax mu ne yéen xaaru dana wamatu leen xar si jëm xaras walil kursi yu ak kursi yu xatti sama mbind mooy mooy li koy def de birafin lay laay ci yëkkatig yàlla sil xutsi moom muy borom xutsi yu de nee ne lépp loo xam ne bind naa ko rek day womatul boppam jëm xaras jëm kursi yu waaye yàlla moo ko yëkkatil boppam ci boppam moom borom kursi yu moom muy borom sell moom mi nga xam ne mooy borom pay yu sell yooyu yëpp ñi di ko fa sàbbal nee ne lépp lu bind rek day womatul boppam jëm xaras jëm kursi yu ak lu ma mën a bind rek noonu lay def de. dama ko notal na lii ñeel ma as saytaanu saytaan rabbi sama borom li si waaye mu jëm ci kuréel man waxaare womata na lii jëmee ci man allahu yàlla. ridaahu ngërëmam fii xawaaye ci li nga xam ne moo di sama bëgg-bëgg de nee na yàlla notal na ma saytaane toroxal ma ko dàqal ma ko muy jëm ci fudul man yàlla moo moo matal ngërëmam ci mboolem samay bëgg-bëgg rek yala da ci roof ngërëmam de nabi naa sunu yonent bi sala yàlla julli alayhi ci moom allahu yàlla maa salaamin julli